pour wax la ni yii nuy dajeeg yéen teguñu ko ci fuyu fay waaw mënul nekk waaw waaw bañ nu tànn loo itam tànn nanu li nu tànn mooy nekk taalibe ba faw waaw yàlla bu nu nekk lu dul taalibe ba faw waaw soxlawuñu ko ndax nekk talibé dàq moo dàq moo dàq fuuf mos nañu ko waaw mos nu ko moo dàq fuuf waaw nekk talibé moo dàq waaw mos nañu ko moo dàq fuuf waaw yàlla xam na ko ba tax na kon nag nu jàpp ci rek te bañ koo xeeb waaw jàpp ci bañ koo xeeb jàpp ci bañ koo xepp in tashkuru in tashkuru yardahu lakum waaw in tashkuru in tashkuru in tashkuru yardahu lakum jeex na ah ñaari baat la ñaari baat la ñaari baat la yàlla ne soxla na ci nun léeg-léeg mu séentunu seen ñu ca diggoot ba ñu dóor pooj waaw ne soxla na ko ci nun waaw ndax dana tax mu xam ni yëg nañu li mu def waaw ah hal alaya wayxakum hal alaya wayxakum ah لا لئن هلك الحاج الممجد لئن هلك الحاج الممجد مالك وصار دفينا إنه غير هالك آه، إنه غير هالك غدا تاركا من كان في المجد مثله وما مات ميت تارك مثل مالك ها آه، حذا حذوه في العلم والجود والتقى وفي كونه يثنى به فتك فاتك نخ أبو بكر ننزفت إليه خلافة تكن إذ رأت كفءا لها غير فارك ها لقف أول من زفت إليه سميه وقال لها لما أتته أنا لك يخمع ها فقال لها لما أتته أنا لك ها فلم تئمي ما دمت حيا فلم تئمي ما دمت حيا وإن أمت فذا عمر بعدي له أن ينالك ها moo لك ما rek نك تالي بي جرنا jar واو nekk taalibe jar na lu ne ku bëgg nekk muqaddam mbaa sëriñ jëlal waaw jëlal waaw jëlal nu nekk taalibe ba faw wallaay wallaay wallaay wallaay daa xunti maa xunti waaw loolu la maa ko waxoon waaw maa xunti wallahi daa xunti maa xunti ndax ku ne la nga am ngay demee sa kër sëriñ waaw waaw benn sunu jigéenu lawbe bu neex la gàmm gu neex dafa am Tiwaawan doomu soxna yépp ñëw ku ne la nga mën nga dem ci mu ñëw ni jigéen ji man de ndóox rekk laa man ah, ndóox waaw waaw mu ni ndóox rekk laa man ma gëstu ma ni xale bi ana leket mu ni indi ma ni ko tëggal ko mu ndóox waaw waaw waaw waaw ko tëggal ko mu ndóox bi mu ndóoxee ba noppi ma ni ko di dem aljanna ndax من يكون ده خنتي ما خنتي والله آه. بتحنا آه. تبارك الله تبارك الله بودي مي فنيت دي سوي بيجل واو بودي مي فنيت دي سوي بيجل واو بودي مي فنيت دي سوي بيجل واو بيجل واو tabarkalla tabarkalla